gis nga yaa man maa leen mag j'ai soixante cinq ans vingt et un laa jëkk am million jàkkaarloo naa ak socialiste yi xeex ak ñoom ci Tanor ba falu quatre-vingt-dix-huit si PDS yi ba falu ñaar yoon ci seen kaw Ablaye Wade teg ma fenn ma xeex ba fal Macky Sall gisuma leen yéen bi may xeex sept région laa def moom fab sama alal jëpp def ko ci Macky Sall ngeen may saaga danaa Dakar seen nday yéen ñëpp benn par benn sàcc yi nekk ñi ministre directeur ku mel ne Farba jaay suuf si di lekk danaa xarfal seen bay maa ñëpp ndeyam mais yaa xam xam nga depuis quelques mois dëgg la mais dangaa yàq sama der fenal ma ci ay rajo ci loo xamul dara ma bàyyi la nag ba mu jot ndax yow bi may wax ci affaire gerte gi ba Ngom miy wax dañ koo jox gerte mu jaay ko Moustapha Niass Cheikh Seck ay meeru jabaram ka jox nañ ko 40 tonnes Matar Diop bu gàtt boobu nga xam ne moom lay àndal ay centaine de tonnes mu jaay ko may sa Sele Ndiaye jox nañ ko 70 tonnes jox Sele ma nekk fële di tonnes yow joxuñu la wax naa la ko nga toog di ma saaga di wax lu la neex ma toog ba léegi nag may ñàpp sa ndey te doo ci man dara damay daqaar sa ndey demal ci procureur sa datam ndey. pour ma bàyyi la da nga dem weddi li nga waxoon ci rajo télévision bi far Farba. mbaa da ñëw sukk sama kanam tuub xam ne du ma sa moroomam baay du ma sa moroom maam sa askan wépp sama dàll leen gën ndax damay werd di jaamu yàlla te du ma naan sàngara du moy te du ma fen te ragalu ma Macky Sall mënumaa ma Marème Faye mënumaa ébranlé dama àndoon ak ñoom ci ngor léegi xeex bi déclenché na dañu xool ba xam fan lay mujj ndax yéen du ngeen gor li ma liggéey CEDEAO ngeen dem di ma dóoral ak di kat seen ndey di wax lu ngeen xamul dara CEDEAO ko fa taxaw ni ma dollar jël naa ko fa ma xotti sa bajom ndey man man Afrique gi maa ci gën a clean waaw Macky Sall maa ko gën a clean ay ministre maa ko gën a clean ci Sall mi ngi traîner des casseroles mook ñi mu àndal boo ma tuddee ma xotti sa datam ndey xaleet seexal la ko ci mbedd mi sa lëfal ndey ak farba yaa xam maa ngi lay woo jot naa sa jabar wala leneen mais fu ma la fekk danaa dëgg sa ndey yow yaa xam naankatu sàngara nga doxaankatu caga nga ko ñàpp sa ndey nga dig tuul nekk wat say kooy ci kanamu Marème Faye danaa kat sa ndey ñu jëlee la fi nga ne doomu xaj piir nga boo amee fit nag danga may porter plainte ñu dem ci yoon sa lëfal ndey géwélu xaj bi nga doon jaamab kañ nga ku ñàpp sa ndey nga yaa xam yaak Farba Ngom danaa toj seen cottu ndey ba ñëpp xam ne Dakar naa seen ndey yéen ñaar ñooñu yow yaa xam naan sàngara ak doxaan caga mooy sa métier ku kat sa ndey nga Macky Sall warul te nangu sax nga jege ko danaa Dakar seen ndey yow yaak Farba yéen ñi ma tudd neel Farba Ngom bu ma amoon kéem dana ko saaga naa ndeyam te danaa toj cottu ndeyam géwal bu xaj bi mu doon jaamu xaj bi mu doon lekkatu riba bi mu doon lekkatu suuf bi mu doon. ku ñàpp ndeyam la suufu ndakaaru sëpp dagg na ko jaay ko mais danaa tegal ndeyam moom moomu moo mérité dem kër yi fa Karim demoon mu tëdd fa te dees na ñàpp ndeyam tôt ou tard bu dee day nekk di yàq rek danaa toj cottu ndeyam jox ko kii live bi maa ngi koy yónnee Aliou Guèye pour mu jox ko président Macky Sall yéen ñaar fu ma kacce seen ndey ba bàyyi leen dootu leen doon dara sa lëfal ndey baa ngi nii di ma woomee cottu ndeyam. Moustapha trois heures du matin maan laa ndekkee cott ndey Farba ak ñi mu àndal Macky Sall bu fajul li may faj ñëpp lay boole saaf seen la ndey ci biir géej gi building beeg bi ñu sàcc ak xaalis bi ñu sàcc ak li ñu sàcc ci terre beeg lépp lay dugal ci seen cott ndey saam leen ñoom ñëpp def ci géej gi joxal ma laayef bi xalif général des mourides dajjay nday ñii nit ndax ni la li ma daj ci ñoom danaa xotti seen bujju ndey ba ñu xam ne duma seen morom seen cottu ndey asalaamaaleykum maaleykum salaam na nga def sant yaa nga am jàmm nii dama doon xool internet bi gis ay audio yoo xam ne vraiment jaaxal na ma daal. lu la ci jaaxal. ndax euh, dama ciy dégg ay sa ay ay ay wax yoo xam ni. man ma saaga saaga Farba Ngom. Mm-hmm. bàyyeeku ma ak Yakham Mbaye loolu ban boo lan leen ci jaaxal. waaw léegi xam nga yow da di suñu waay. non non euh, du wax loolu arrêté ndax bi bi muy tudd sama baay Alioune ni ci man. ah da koo tudd. waaye arrêté waay yi ngay wax man du ma dof. ah boobu déggu. yow maa la ëppum xel te mënoo ma ci diine l'islam dëgg la quatre heures du matin lay jóg ku mooy yàlla. dëgg la. di def mille cent onze basmala juróom-ñetti yaa kaaf yi ma koy cent onze di def yaa ya ya yàlla di cent vingt neuf di def vingt-huit salaamun qawlan min rabbin rahim sept lii laa ci Quraysh dara lañ ma maa saaga seen nday wala vidéo vidéo boobu hmm. sama sëriñ sëñ Moussa jot na ci ak sëñ Mountakha ak président Macky Sall lan mooy seen problème donc dañuy gën tay caga di naan sàngara di ñu ñëpp seen nday di may ma dama leen coupé yow